société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen ñu ànd xëy yër yéenekaay gi di réew mi li nga xam ne moo xew ci diwaanu Afrique na waar génn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waaye natt daana koy passé démocratie bi xam ne ñoo ngi yàq bi nga xam ne moo am ci yenn réew ci déndu Afrique Assane Samb xëy jël xalimaama ne démocratie bi ci déndu Afrique na ci yoo xam ne ni muy deltoo ginnaaw jégg na dayoo fu ci mel ni Sénégal fu ci mel ni réew mu ñuy wax Côte a Niger ak Bénin ak yeneen i réew ndax nag réew yii nga xam ne ñu nekk ci dëndu Afrique bu ñu amee ay opposant au lieu ñu jàppee leen ay opposant waaye nag ay noonu la leen di jàppee xoolal Ousmane Sonko ci Sénégal bëggoon a dem fi nga xam ne mooy Lomé ñu ne ko doo génn réew mi ana loolee fan la tege yéen kaay gi ne na gis nañu ko tamit fi nga xam ne mooy Guinée Conakry Cellou Dalein Diallo mi nga xam ne war naa dem ca moom tim ñu ne ko bul génn Guinée Conakry loolee la tege te lu mel noonu tamit gis nañ ko fu bare bare ndax ki nga xam ne mooy Karim Wade jamono ji gis ko def ba Khalifa Sall ak Guillaume Soro Guillaume Soro mi nga xam yoo xam ne élection yi ñu génn dañu leen a écarté maanaam li nga xam ne mooy parrainage yéen kaay gi nee na ca Niger ka nga xam ne nag mooy Amadou gënoon faa fës loola ci opposition bi dañu koo jël maanaam dugal ko ca kaso ba pare nag bëri na ci ay réew ci dénd Afrique dañuy modifier li nga xam ne mooy constitution yi ngir nag mën a def ay njuuj njaac maanaam nag ay taf yëngal ñu bare bari tey opposant lañu leen di jël tëj leen ñii ñu jël leen exil boole leen a yokk si nag di harcelé ñi nga xam ne ñoo ay taskatu xabaar yéen kaay gi di réew mi ko di jën ci xëlim ak Assane Samb nee li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci dëndu Afrique doy na waartalu mbir mu ñaaw a ñaaw la ndax démocratie bi ni nga xamante ni moom lañ koy salfaañee di ko yàq maanaam jàppay opposant di leen toroxal ak di leen tëj si kaso bi loole lu mën a la yéen kaay gi la sax xëy wax ci élection locale yi xam ne maanaam ak seegul noppee nag di piicoo ko mbaaloo ak ca diwaanu Fatick Biram Faye Souri Kaba ak Cheikh Kanté ak Matar Ba ñooñee tamit ñoo fay piicoo ak di fa mbaaloo ca diwaanu Tamba maître Sidiki Kaba ak ki ñuy wax Mamadou Kassé directeur général bu SICAP sa diwaanu Ziguinchor foofee Doudou Ka moo fa nekk ak Bounoua Samb Abdoulaye Baldé ñoo nga fay piicoo ñoo nga fay mbaaloo ca diwaanu Kolda Abdoulaye Bibi Baldé ak Moussa Baldé ak Mame Boye Diao ca diwaanu Saint-Louis foofee Mary Teuw a ak Mansour Faye Linguère Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Macky Sall laas yéene kaay ne élection locale yi en tout cas dikkagul waaye coalition benn bokk yaakaar bëri ci réew mi foo xam ne pëccëxoo na ba maarade taal yi yéene kaay réew mi quotidien xëy yóbbu ñu ca diiwaanu Dugaara foofe nag nee na askan wa nga xam ne ñoo fa yeewu mer nañu ba maarade taal yi ndax dafa am benn société boo xam ne dañu koo tuumaal dafa ngar daajoo lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ca hectare loo leen nag askan woon a génnoon doon manifester ña doon manifester lu si ñaar fukk ak benn leen defeere nañu leen yéene kaay gi di bëri na ay association islamique politique yoo xam ne jamono ji ñoo ngi teg pression ci état bu Sénégal di ko sëkkatal ngir nag mu wane boppam bu baax a baax ci li nga xam ne moo xew diggante Palestine ak Israël association islamique yi daal li ñuy sàkku ci réewum Sénégal maanaam mu fësal nag njàppandal gi nga xam ne ma ngi koy jàppale waa Palestine yéen i kaay gi de libération na front de résistance nationale ñoom Mamadou Diop Decroix ñoom nag daat nañuy woo askanu Sénégal yëpp maanaam ñu daal di génn ci manifestation yi nga xam ne tey jii danañu ko amal ci nag wane jàppale gi nga xam ne moom la ñuy jàppale waa Palestine yéen i kaay gi di réew mi ko Quotidien nee na tribunalum Ndakaaru ni ki démb toj na ndax patron pâtisserie Grande Doro moom la ñuy yóbbu fa mbaxana doone benn moom Mohamed Didi ak ku ñuy wax Charlène Leslie Natacha ak ku ñuy wax Youssouf Wasne yéen a kaay gi di réew mi Quotidien ak L'Observateur nee na nag la nga xam ne moo ko waral mooy patron pâtisserie Grande Doro dañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn Youssouf moo ko fa yóbbu di ab employé ma Youssouf moomee nekk dafa jàpp ne Mohamed Didi maanaam nag da doon ànd ak soxnaam yéen na wàllum adultère la ñuy koy toppee moo tax ni ki démb tribunalum Ndakaaru yëngu na yéen a kaay de source a ah, xëy dañu xibaar naan ñu société bii nga xam ne mooy Sococim merloo na loola askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ca diiwaanu Rufisque ndax waa Sococim dafa am juróom benn la fuur boo xam ne dañu ko bëgg a nga xam ne mooy Rufisque loole nag merloo na lool loolu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Rufisque la ko waral nag mooy air pur maanaam nag ngelaw lu baax loo xam ne waa Rufisque nag noo yeetuñ ko na te xam ngeen ne pollution bi nga xam ne mooy génnee Sococim nag mën naa andi lay jafe-jafe askan wa nga xam ne maanaam ñoo fay yeewoo ndax bëri na ci ay yoo xam ne riir réew ma ngi koy riire di Sococim di defar ciment bëri na fa ay kër yoo xamante ni riir moomee moo ko yàq yéen gi di réew mi quotidien Mamadou Thiora mu koreet nee na journaliste yi nga xam ne dañuy politique ñooñee kenn du leen jox carte de presse yéen gi di Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu coronavirus bi nga xam ne andi na ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum économie ak bakkan yu bari yoo xam ne ron na ci àdduna bi am na yeneen jafe-jafe yoo def corruption ngir nag def ay njuuj njaaca ndax nag am na ay procédure yu bare bare yoo xam ne ay passation de marché maanaam du ñu ko respecté bu ñu waxee nag ñuy taafantaloo li nga xam ne mooy coronavirus bi maanaam di yëngatu ci lu jëma ci manque de transparence ba pare di def ay njuuj njaaca yéen kaay gi di réew mi quotidien l'observateur laasa nee na Grand Yoff dafa am benn étudiante congolaise boo xamante ni dañu ko fa daal di agressé kaka agressé nag jamono ji teg nañu ko loxo te lu ngeen si xamul maanaam ci korité gi rek la Macky Sall nag gracier ki nga xam ne moo rey étudiante boobu yéen kaay gi nee na mbir mu doy waar